dalal fii euh, suñu xarit muy euh, directeur général bu Air Sénégal Ibrahima Kane ak euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñoo ko toftalu ci liggéey bi nga xam ne bu mujj ay bu Air Sénégal door depuis su ma juumul ñaari at wala lu ko ëpp tuuti ñu gis ñoom ni ñuy développé woo ci biir Afrique ak ci àdduna si mu nekk fierté pour sénégalais yàggoon nañu bëgg a ni ñuy gisee yeneen dëkke di am seen compagnie bopp ñu ñu am ko te euh, ci ndogalu président Macky Sall ak ñoom ci seen liggéey ak euh, bu ministre euh, Alioune loolu ñu ngi koy commencé gis ñu bañ a yem ci loolu rek ne ah ñun kat il faut que ñu tey am maanaam àndandoo sëy ak fédération sénégalaise de football à travers ñoom Lions yi pour non seulement def partenaire yoo xam ne may fépp fu ñuy dem ci Afrique. Euh, bu ñu ko euh, yoon bi mais ñoom ñu mun jël suñu avion yi boppa muy Air Sénégal euh, dem ci dëkk yëpp wàcc fa ak suñu Lions yi voyager si condition condition yu mujj ayib def naa ñoom seen bopp joueurs wax nañ ko sànq ñoom Idrissa Gana ak ñoom Kalidou voyage yi ñu jot a def ak ñoom macha allah lépp jaar yoon amuñu dara dara lu ñuy xoolee maanaam compagnie européenne ñu mag yi donc loolu ñu koy rafetlu te defe naa li ñu signé nii li ñu xaatim tey dinañu may ñu gën a nekk ci condition pour voyager partout en ak indi ndam defe naa loolu mooy bit bi te li ñuy séntu rek mooy ànd ak Air Sénégal fu kawee kawe fu kawee kawe mooy ne amaana tey ñu ngi am ay performance yu baax il faut ñu gën a weesu loolu indi trophée continental delluwaat coupe du monde et yàlla dimbali ñu parce que tey suñu joueurs yi xarañ nañu ni Air Sénégal xarañ noonu la suñu joueurs yi xarañ euh, Sénégal gule ci histoire ñeenti at Ligue des champions ñu gis euh, suñuy doomi Sénégal di jouer finale yi di ko gagné sax boo xam ne ci ñeenti finale ñu ñaar yiñ fii lañ ñëw Sadio indi na benn Edouard indi na benn macha allah Sénégal bu ñëwee nag dina am yeneen yu gën a ñëw Coupe d'Afrique toppaale ci te pourquoi pas nañ ko ñemee euh, xalaat euh, ñun ñu nekk pays africain buy njëkk a yegg final coupe du monde wala demi finale wala sax gagné raay bi nañu gëm suñu bopp liggéey ci defe naa suñ ko defee dina kii dina antu te loolu defe naa suñu ànd ak euh, Air Sénégal dinañu ko may mais gërëm DG Ibrahima Kane di gërëm le ministre euh, du tourisme et des transports euh, Alioune Sarr ak président Macky non seulement ci euh, compagnie bi ñu taxawal ak ni ñu ko yoree mais aussi si ni ñu gestoo équipe nationale bu ñu ko defee si askan bi lañ ko def pour accompagner ñu pour ñu gën a am ay résultats. contrat bi lan moo waa ci biir contrat bi pàcc yi bare na bu njëkk bi mooy maanaam ci wàllu koom bi wàllu xaalis am na budget bu ñu génnee boo xam ne si ñetti at yi. ñu versé li toll ci euh, maanaam euh, cinquante millions at bu nekk bu weesoo loolu itam dinañu euh, jagleel loo xam ne moom la wax échange marchandise maanaam du si koppar la ñu koy jox mais ci ay billets d' avion ñëpp xam nañu actuellement suñu équipe yi muy équipe A bi tuuti tànk yi jigéen ñi ñëpp ak même bit soccer ñu ngi pas waajal coupe du monde dañuy voyager rek dañuy jouer fu nekk pour mun gën a eesal suñu niveau donc am possibilité boobu lu am solo la. ñu yokk ci tamit ñu ne ñu ah bu fekkee dangeen dem dëkk boo xam ne xëj na amaana Air Sénégal demagu fa dinañu xool naka la ñuy mën a utiliser ñun suñu kattan pour yombal leen bi yi si yeneen compagnie def naa loolu tam lu am solo la ñetteel bi tamit mooy li nga xam ne mooy euh, maanaam lu ñuy def ba suñu joueurs yi gën a motiver mooy lan li ñuy wax euh, euh, maanaam prime yi dañu jagleel compétition bi nekk muy kan di coupe du monde ah, wala yooyu saa yi ñu qualifié wala ñu jàll benn fas quart de finale demi finale am na lu ñu ko jàggal si koppar boo xam ne dina gën a motiver joueurs yu gën a motiver fédération fédération gën a am koom pour gën a mën a euh, yóotu li nga xam ne mooy. signature euh, protocole d'accord bi ak contrat euh, diggante Air Sénégal ak équipe nationale Sénégal mu football contrat boobu su ngeen ko xoolee contrat bu yaatu la contrat bi bokk na ci ni ko maître Senghor waxee. ay accords financiers bokk na ci ay accords accompagnement loolu mooy équipe Sénégal buy déplacé Air Sénégal mooy ànd ak moom muy ci suñu avion mu ci yeneen avion mën na nekk sax ay vols spéciaux te loolu def nañ ko du benn du ñaar déjà euh, accord bi bokk na ci tamit ay euh, ni ñu ko waxee euh, échange de marchandise loolu mooy Air Sénégal fii ci kanam fii ñett at mooy nekk officiellement transporteur officiel équipe nationale bu Sénégal te loolu lu important la et suñu contribution financière équipe nationale sénégalaise Sénégal sax mu na am lu ko ëpp mais global bi c'est à peu près six ci ñetti at et cent millions yooyu mooy li Air Sénégal di indi teg teg ko euh, ci euh, ci table équipe nationale Sénégal en retour euh, équipe nationale Air Sénégal dina mbubboo Euh, fédération Sénégal de football dina mbubboo équipe nationale euh, Sénégal de football te du yem rek ci équipe première dina dem ci yeneen équipe yi équipe féminine yi équipe euh, cadet yi et cetera et cetera loolu yëpp dañuy ànd ci seen transport ak ci lu ñu ci mënee échange ak ak ndimbal loolu mooy suñu accord bi tey te ñu ngi ci kontaan trop te ñu ngi ci fas yéene commencé léegi-léegi ndaxte commencé woon nañ sax te bindaguñu Euh, accompagner ci campagne bii di ñëw wi euh, national nationale euh, xam nañ ni campagne coupe d'Afrique bi mu ngi commen mu ngi mu ngi mu commencé coupe campagne coupe du monde bi tamit te ñu ngi ci rafet njort ak professionnalisme bi ak ñun tamit luñ ci mën a indi yokk suñu loxo pour coupe du coupe d'Afrique bi ñu de mu mu daal mu ñëw fii ci Sénégal muy guléet ci ñu ànd tamit ci coupe du monde bi te ñu sori si lool te du ñàkk sax suñ ci yàlla mayee ndam ñu delloo ko si. déggoo bu naturel la nga wax. boobu dafa mel ni euh, Sénégal ak Sénégal ñoo déggoo xam nga Sénégal ak Sénégal fu ñu jaar ànd déggoo boobu bu ngeen xoolee sax suñu avion yi Air Sénégal duñ ci bind sax Air Sénégal Sénégal lañ ci bind. fédération football sénégalaise loolu mooy suñu équipe buy dem ci ci euh, ci di jouer ci terrain. duñ ci bind équipe Sénégal de football Sénégal lañ ciy bind loolu moo tax suñu ànd mënul ñàkk euh, léegi ñun liggéey lañ ci lañu lañu la ñu ci sas liggéey boobu yegg na tey euh, léegi ñu ngi commencé nag euh, suñu partenariat bi officiellement waaye commencé na démb waaye maa ngi maa ngi ci gërëm maître Senghor di ci gërëm ñëpp te ji ñaan yàlla mu yeggale ko jàmm te am may ñu ndam.